Bienvenue sur Salam Vision. Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf coronavirus bàjjo bi ñi mu rey ñuy dox ñu ëpp fuuf ñi mu rey ba ñu suuli leen l'observateur xëy sulli wax ji di ci waxtaan ak boroomi kër yu sonn lool ci mbas mi yéene bi nañu ab enquête boo xam ne def nañu ko ci diggante weeru mars ak weeru février 2021 ba wax na ne lu toll ci junniy liggéeykat ak ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-benn dàq nañu leen fañ doon liggéeye ndax ña leen doon liggéey loo ñoo gën a ne lu mat junni ci ñoom ak téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar dàq nañu leen ci lu tegewul ci yoon fayu ñu leen sax seeni droit liggéeykat yi mbas mi tax ñu ñàkk seenub liggéey am ci kenn ci ñoom ku ñu naan Massaer Gomes dëkk ca Cap am lu toll ci fanweeri ak ñeent nee na jafe-jafe jamono tax na mook famem yëpp nijaaye moo leen hébergé keneen di Ceerno Njaay ne moom yàllaa ci jàpp ne dafa naroon dof Medoun di benn waay bu ne moom médecin de surface moom waa ji mi nga xam ne ci biir yéenekaay bi ne ba ñu ko dàqee ak léegi dundug welayaan la dëkkee borom dëkk bi borom réew mi di Macky Sall la tribune nee nañu demande sociale bi ci réew mi sëkkatal na ko ba wër ko ndombo borom kër yaa ngi jooy ñi amul liggéey mu di sëmëri ñoo ngi jooy nappkati réew mi ñoo ngi jooy ñi ci santé bi ñoo ngi jooy seeni ronkoñ feregul njëgu dund gi di gën di yokk saa su nekk le témoigne xëye mbir moome mu di emploi des jeunes ba Macky Sall moom it ba mu ñëwee léegi ma nga ciy jéem lu nekk waaye mbir yi sotteegul illay boppam la ko def port ba ñuy def ca ndaayaan coow la ca amoon jeex na ubbi libération journal bi nee ñu ci samedi ji weesu ci lañ ci doon amal ab réunion ndajeem waxtaan mu dajale woon préfet bu Mbour préfet bu Tëngéej maire bu Diass maire bu Ndaayaan maire bu Popenguine maire bu Yène ak maire bu Toubab Jalaaw ñeneen ñu teewoon ca ndajamay ñoo di service départemental yu Rufisque ak yu Mbour réunion ba doonoon ci teewaayu PCA bu port autonome bu Ndakaaru ak it ci teewaayu Aboubacar Sadikh Bèye directeur général port autonome bu Ndakaaru yéene kaay bi nañu wi am ci port ba ñu fa bëgg samp jàpp ñetti waxtu yi la mu toog nañu ko di ca waxtaan ak di ca diisoo ba ñu noppee ci la directeur général bu port autonome bu ndakaaru di Aboubacar Sadikh Bèye jëlee kàddu gi dalal seenum xel waxtaan ak ñoom ci njariñal projet bi ak li mu mën a jural askan wi ci wàllu emploi ba yeggee leen it li leen président Macky Sall sant mu di bu ñu liggéey port bu Ndaayaan bu ñu laal benn village traditionnel nañu leen moytu lu ñu mëne nañu moytu it yàqal kenn dara libération nañu ci réunion boobee fa la ñu waxtaane ba gindiku gindiit askan wi ci port bu Ndaayaan ñu jaare fa jàll ci Source A xooli waa comité dialogue social ba demoon seeti nappkati Sénégal yi ya ca sani yang ga ca Gàmbi la ñu fa gis dalatum xel ne njaboot yu bari ba fitna ja tàmbalee dañoo daw tasaaroo dugg dëkk bi ñoo nga biir Gàmbi xale yaa nga biir Gàmbi amuñu fa ay kayiti Gàmbi amuñu it kayiti Sénégal du ñuy Gambien du ñuy it ay Sénégalais Sénégal ak élection locale yi ñu fi wax la Sénégal nee nañu bomb la buy tege dàq nañu datu wote yi te ba léegi jàppaguñu beneen dat loole nag yéenekaay bi nee nañu bu ñu ko lijjantiwul mën naa jur lu bari lise ko nañu projet de loi bi ñu yëkkati woon keroog politico lu jëmit ci mbiri député Issa Sall bu pur mi ñu war a remplacer ci assemblée nationale loolee yéenekaay bi nee nañu jëmmal nañu ko Sud Quotidien nañu président Macky Sall mi def fu ne mu taxaw fa di wooteeb dialogue ni mu doxalee ci élection locale yi mu di xëy xëy reporté ko te amu ci ak déggoog ñi ko séq loolee lu mën a xajamal dialogue politique bi muy jéem ci réew mi la réew mi quotidien xëy di waxtaane parti politique yi ci Sénégal ak ni ñu bare journal a a wàllu yoon bare na booy xool li ñu ko mas a garde à vue moom Guy Marius ëpp na fanweeri yoon ay liberté provisoire it li mu ci amee kenn xamul nu mu toll liberté provisoire bi ñu ko may keroog moo mujj ne mi ngi woon ak yeneen ñaari liberté provisoire ci gàttal libération nee nañu Guy Marius Sagna mi ngi dox ak ñetti liberté provisoire waaye Macky Sall itam sonn na de temps yi dëgg la tribune jafe-jafe yi nga xam ne kon moom la sénégalais di dund day waaw Macky laa ne kon di koo wër ndomba allahu akbar ci côté yëpp nag laa la wax parce que ginnaaw nag bañ ko falaatee ni lé waaw mu daal di yëkkati ay poste nag daal di koy jébbal ay opposant yaakaar ne kon bir mi dana ànd ak dal waaw yaakaar ne tamit jafe-jafe sénégalais yi lée dana wàññeeku France daal di la mu jural gi ay ndóol di ay pauvre day ëpp na day triplé yi léegi ñett a yaa ngi ni lée gi suñu jën parce que suñu géej ci boppam kon nañu koo jël daal di koy wanteer daal di koy caxa-caxate mar di tali la ilaha illallah nga daal di jëy toftal nag ñi nga xam ne kon amuñu liggéey di chômeur yi lée dund gaa ngi ni lée daal dinay boo ca toftalee nag ñàkk a waxtaan ba juboo bi nga xam ne kon moo dox ci diggante gouvernement bi ak syndicat yi waaw liyee tax nag ba njaboot yu bëree bëri fi mu nekk ba nit ñaa ngi mer a futu laa la wax te Senelec moo def lu ni mel ciment baa ngi ni lée daal dinañ koy yokk waa kaw gaa ngi ni lée di béykat yi lañ daal mooy ñu gën leen a wékk ci li nga xam ni kon maanaam moom la ñuy béy wàllum waaw magistrat yaa ngi ni lée bu ñu sañoon gën a moom seen bopp wàllum indépendance muy borom kër yi di père de famille muy ndaw yi nga xam ni kon amuñu liggéey muy nappkat yi lée dama ne la daal xam nga lan waaw muy Macky Sall yoo ak gouvernement ngam bi ak askan wi ci boppam ah, li xaar ci coppite wu gouvernement bu du bari de gouvernement boobee day lañ fi indi ci coppite du bari laa la wax ne mbas mi day waaw yaakaar gu tas musiba mbaa kumba bi nga xam ne kon moom la fi jur ni lee ëpp na ay kër yoo xam ne dañ leen a fañ doon liggéey la ñuy ne moom la ñuy dund fi mu nekk doy na waar ci wàllu mitit ak coono bog sob li ne ginnaaw fitna yi nga xam ne nag moo fi amoon ci ndorteelu weeru mars waaw Serigne taxawaayu ummu kara nee na ñun ñëpp ñoo war a maar di taali mbàkke mbàkke bi ne waaw parce li xew li ne yaram daw na choqué na gàcce tamit am na ca parce que nag ñi lée ñoo waroon a joxe kon exemple bu baax bii ña ca wàlla xool ci ñun waaw Serigne Modou Kara Mbàkke ne gis nga état dëkk dafa war di jàppale kon askanam yërëm leen teg ca daf ci am loo xam ni kon Macky Sall mi la war na koo def ngir réew mi soppeeku waaye bu ko deful day problème yi dana bari bari de Serigne bopp arrogance koo xam ne kon moom la gouvernement bi nekkeel ala wax taxawaay wii suñuy njiit taxawee ci boppam kon moo rafetul yëgaluñ seen bopp sax jafe-jafe yi nga xam ne kon moom la askan wi dund laa la wax Serigne Fallou Dieng ne ay état major politique yoo xam ne day yu am dara nga sax ne ci diwaanu Touba gi lé lëkkaloo ak yenn ci ay mbàkke-mbàkke day la nu bëggoon waaw mooy puus Macky Sall mi la ba mu sës ñu taxawal fi benn conseil de transition eh nga xam ne kon dañ koo demee ba Macky Sall ci boppam taxaw di yàq dialogue politique bi lée moo ko plombé de nguur gi day 2022 la ñu bëgg atu député yi opposition bi ak na li ñuy yilee nee nañu lii am na nekk ca ginnaaw société civile ba day ak experts électoraux yi waaw ñoom daal nee nañ 2021 gi lée lañ war a organiser élection yi looloy dëgg de last am na beneen bomb boo xam ne day war nañ koo fay de boo di ci mbirum xeet wàllu mbañeel goo xam ni mi ko nañ ko léegi li nga xam ne kon abi danañu ko voté ajuma ji di ñëw eh way samba plénière la critique yéene kaa ne ay député yoo xam ne dañoo tekk seen ndomba tànk wala député yoo xam ne seeni parti ñoo leen dàq waaw ñaari kaa ni lée ay urgence lañ de ci taabalu Moustapha Niass muy Déthié Fall mi nga xam ne jël na yoonu boppam waaw waaye yow Déthié waa Qatar day bu ñu sukkandikoo ci la lettre centre du continent dañ doon créé nag benn fonds stratégique d'investissement Afrique lañ ko fas yéene jagleel waaw toll ci mille quatre cent te xaalis boobee Karim Wade lañ ko fas yéene dénk wala Alassane Dramane Ouattara mi ñu yaakaaroon ne day bàyyi wàllum politique Karim ma ngay liggéey di même ñëw président Congo ca Doha googe Karim ma nga ca organisation ba libération yéene kaay ne Guy Marius day borom ñetti liberté provisoire waaw dossier yëpp ña nga ca doyen des jëndal ko oto ñëf les ko yéene kaay ne saaka Dakar atu dee ak administrateur waaw ñeenti jege ñaale Marcel Diagne teg nañ leen loxo ña des daal dinañuy daw waaye moom Marcel Diagne moomee daal dinay jéggaloo Serigne Diagne enquête yéene kaay ne Ousmane Sonko dee doxalinam gu bees gi lée wax waxeet la wala réalité politique la parce que léegi nag a ci biir Moussa Diaw jàngale ka day nee na daa am discours ak réalité évidence yéene kaay ne jàppale étudiants ne ca lii la ñuy xaar ci yéen de waaye wax rek direct news de tabax nag pooru Ndayane nga directeur général port autonome de Dakar waaw daal dinay bale terrain bi nag ba mu set wéy tribune yéene ka ne lu tollo huit cent quarante millions de dollars allahu akbar le futur port de Ndayane waaw juróom benni téeméeri hectare dama ne la directeur général port autonome de Dakar tey Aboubacar Sadikh Bèye daal dina ciy daje ak meeru Diass ndaayaan bu Popenguine tubaab jalaaw ak ñeneen ak ñeneen sax DG wu port day Serif Bey daal xam le nag port boobee la mu mën a tàggat ci ay ndaw ñaata ndaw la war a mën a wutal liggéey ak gox goxaan yooyee portu ndaayaan man nan la leen a mën a jural laas ouvrage yi nga xam ne moom la ñu war a def ca Kër Massar gëla liggéey ya waaw ngir xeex ak wàllum inondation yi day Omar Gueye ministre ma nga fa moom ministre collectivité territoriale day xamal nañ ña xam ne nag maanaam ñoo nekk liggéey ba ne leen na gaaw na gaaw a gaaw yéeni kaa gi ne moom ministre Omar Gueye moome ma nga woon ca terrain ba kon démb dafa war a gaaw balaa taw bee ñëw de libération yi ne kaay ne pose première pierre centrale ba day bu West African Energy suba la ñuy tekkoon xeer bu njëkk ba day maanaam Samuel Sarr day ak Xaarim Ba Abdoulaye Dia Seniko di ma jambal jaañ ubbil critique yéen kaay procureur Alioune Ndao ne lu tolloo ñeen wax ni ci ay enquête yu ñu ubbi ci kër yi googe Macky Sall daal dinay gas bam xóo daal di koy suul ma jambal jaañ nag man loolu laa koy laaj man procureur Alioune Ndao na ma jambal jaañ laaj xaritam bi la di Macky Sall waaye dossier kër yi yooyee ban la tollu enquête ba <laughs> enquête créé yi boobu day waaw lu mu doon farata farata farata farata farata farata farata pétrole bi tamit farata te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo la alaaji Bienvenue sur Salam Vision.